tabaraka allah mbokk yi ñu ngi leen di ñëpp di leen ziar di am mbégte lool macha allah imaam sa sëriñ ca bi riche na lool muy xaritu imaam bi nga xam ne ko xam imaam xam nga ko muy sëñ Alex Alex wala Alex Alex si district waaw muy xaritu imaam bu yàgg boo xam ne yàgg nañ koo gis mu ànd ak imaam moo tax alhamdulilah am na bis sax mu koy koy laaj kañ duggagul ci diine ji mu ne ma incha allah dama ci dugg kon na ko moo tax imaam tey bëgg ñoo wax ndoog moom baati shahada yi kon ngeen euh, mbooloo ngeen ko te seede ko te ñaanal ko yàlla sama borom sax ko islam ku xam bari islam la nag yàgg dem Sénégal xam nañu bu baax a baax waaye tey la ko yàlla dogal alhamdulillah Mr. Alex. So I was introducing this uh, ceremony to people and they're here waiting and testifying with you and uh, uh, want to bless you and they all are and very happy uh, to be witness with you this uh, gathering and Allah welcome you, welcome you to this religion and you know some about it and uh, I heard you went to Senegal many times, and uh, mashallah, you, you are Imam's best for a while. So alhamdulillah, we all happy for this. May Allah bless you. We ask Allah to guide you the right path, inshallah. Allah to you the same path. Uh, so, our uncle and president, Mr. Babdarame, want to give his words before we do uh, the retest inshallah. Assalamu alaikum wa uh, this is a great day. We say Alhamdulillah. My wish all the time when I uh, used to see him uh, in the community, are celebrating Magal, celebrating Gamu, being on Bamba Day, I always wish to him to take Shahada and become a Miko Muslim. Now we are a true Brazil, we are a true Muslim. We wish you the best. You are welcome in this community, and Alhamdulillah, uh, your reward, inshallah, will be Jantul Firdaus we ask Allah subhanahu wa ta'ala uh, to keep you among Muslims, to live as Muslim and die uh, as Muslim and wake up uh, in the life after uh, among Muslims with Sheikh Ahmad Rasul. So uh, we congratulate you, we congratulate Imam and the whole community. There are so many friends. I know Mutla Njai is his friend. Abdoulaye Thiam also. Myself, I met him in Senegal uh, many years ago. So Alhamdulillah. Uh, so we are all happy and we keep you as a brother. Inshallah. Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, we welcome you uh, to say, uh, be you coming to Islam. Uh, relation is very important. Uh, Prophet Muhammad is the last one. God sent him to all over the world. It's not like American or Italian, all over the world. So we say uh, welcome with peace. Islam, uh, religion, peace, everything is peace. Uh, thank I want to extend to you that uh, our brothers uh, lead uh, our language, all of them, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mbokk yi di nuyu di leen siyaare di leen jot li nuyoo waa Sénégal yëpp kilifa di nuyu. kon nag ñoo am ay gan gu mag ci biir lislaam mbokk mu mag ñu war koo ñun ñëpp ñu wax alhamdulilah ndax fekke jataay bi am na solo lool waaye dana rafet ñu xam nag bu nit duggee ci lislaam ni ñuy jëflanteeg moom ak ni ñu koy téye kon du yam ak ki nga xam ne dafa juddoo ci lislaam ba tollu fii dañ koy yaatal dañ koy won itam bëtub cofeel boo xam ne dafay jóge ci suñu xol ñu jàpp ko comme ku ñu bokk bokkal lépp ndax kat mbokk gi mbokk gi ci gën a wér nag moom mbokku lislaam ndax nit bu ngeen bokkoon nday ak bàyyi ca mu nekk ci beneen religion kon am na àq ba dox seen waaye du lépp nag waaye kii nag tey jii ñoo bokk lépp kon nag kenn ku ci nekk na ko ko jàpp ni sa jëfi bopp soo ko gis itam nga wan ko kanam ko leer ba mu xam ne diine nii la mel islam nii la mel nitu diine nii lañu la loolu il faut que itam ñu xamal leen ko ba ngeen xam ko ngeen xam ne tay am ngeen bokk moo xam ne yéen a bokk benn pas-pas yéen a bokk benn yaakaar lu ci waay man nag ci laabire ko na ko laabire ak itam teraanga yi daan def rek ñu def ko ndax loolu am na solo yooyu yëpp tey bokk ci ni islam diine ju am njariñ la islam diine ju laabir la islam diine yi mbokkoo la islam diine yi bennoo la lii moo doon kàddu yi rek ñu sànni sa bopp ñëw xam nañ ko la jëfe